di eh, sant yàlla ci safoo gi nga xamante ne yéen a koy safoo ci fidélité bi ngeen am tey nag xam naa ñu ñëw ci comme ni ñu ko doon waxee toujours rek ñu jéem a jariñante te yàlla rek tax tegaat ko ci xadis boobu nga xam ne du ma ko yi di ko wax damay wax ne xadis bi bu doon luy soof la dina soof noppi nit ñi mooy man istataa minkum an yanfaa aqaahu fal yafaal aw fal yan aw fal yan yanfaahu yonentu bi da ne ku am lu mën a jariñee doomu aadama na ko jariñee boo ci mbedd mi yor lu diis yorle ko ko boo rombee nit mu dugg ci oto amul paas paasal ko ko boo rombee nit mu dugg ci oto amul euh, weccat dimbali ko loo man dimbalee ko sa doomu aadama ndax yàlla suñu borom fii ak yaa ngi dimbali doomu aadama yi mu lay bette ay xéewal ngay gën di avancé allahu fi awni al abdi maadaama al abdu fi awni aqihi fii ak yaa ngi sonn ci nu nit ñi amee solution nit ñu nit ñi tàggali woo seeni problème yàlla da lay bette ay xéewal toujours moo tax toujours ñenn ñi dañuy da ngay wax ne da nga jafee jot ak nangam nangam ma ne leen yooyu jaru ko man la fait que li may partagé yàllaa tax yàlla suñu borom mi tax may partager tax xamna ni moo tax kookee seetaanu ma ci lenn parce que lépp luma soxla suñu borom mag ma koy defalee na ma ko bëggé ndax li may def yàlla suñu borom rek tax mu di def tay ñu ñëw fasiyena waxtane ben tour yàlla bo xamanteni dafa bokk ci tour yàlla yi nga xamanteni al fasiqu wa saalixu wal muminu wal muslimu fii ala xadin sawa ki jubag ki jubadi ki yow ak ki saay-saay ñoo ci bokk yam mooy ismullahi allatif yaa latif yaa latif nag daa bokk ci suñuy ci suñuy mbiri bopp yoo xamante ne duñ ca bëgg di xóotal léeg-léeg waaye nag ah, maa ngi nuyu sama mbokk al oustaz Pape Omar Pape Ndiaye macha allah ah, moom di ko fonk yaa latif lool ah, fa tabaarakallah dañ ciy bokk di ci liggéey ay lim yu bëree bëree bëri yaa latifu tur la wu màgg ci tur yàlla ku koy liggéey aaju joo ci yóotu yàlla fekk si la ca aaju jooje yalla ti fu ci tour yi am yermande la bokku du fayanto amul ben lorange bu ci nekk tur wu sedd guy yu la amul ay Jalal, Jalal mom boko werde bolé boole ak leneen wala nga jaxase ak yenen yefi adna rek bo moytul man nan man la xotil xottil da danaa dem barzak legi legi nak dana am ben yon bu ñi partage ci ya latifu ñi nga dañuy topato mbir surtout ñi tukki yag bëgg ñibisi te amuñu ay këyit te ku ne xam na ne as safaru qit'atun min al azab tukki aw daggit la tukki aw daggit la ci mbuugali suñu borom yi maanaam am natt bu rëy la moom tukki loo tëdd fa nga war a tëdd doo lekk la nga war a lekk da ngay tumuranke boole ko xalaat yi man ngaa toog léegi ñu fay la léegi euh, yónnee la sa xaalis defal la ko sa compte léegi ñu woo la sa kër wax la ordonnance boo xamante ne wala feebar boo xam ne wala fitna bu dal sa kaw nga jël loolu def ko ci demaat tàmbaliwaat di daw loole nag bu am boole ko mënoo ñëw gis sa njaboot loolu coono la kon ku ci am soxla yi demee naka noonu wala nga am soxla yi amoo liggéey dangay some maanaa amoo benn liggéey boo nekk moo xam Sénégal nga ne ak foo mën a nekk wala soxla boo mën a am ci soxla àddina yi jëlal secret bi ma lay bëgg wax ci yàlla tif secret bi bi yaa ngi koy tàmbali bisub altine lañ koy liggéey da koy tàmbali bisub altine lu ñuy werd la léegi nag ma am lu ma leeral foofu ci tur yàlla tif mooy yàlla tif bépp tur ci tur yàlla yi booy liggéey te bëgg mu am efficacité ci yow bëgg yàlla wuyu la ci defal la ci ijaaba bu gaaw a gaaw a gaaw da ngay fexe ba tur wa mu jukka woo nga mel loola fexeel ba doon latif bi ibadillah na nga am yërmaane ci jaami yàlla yi bul tànqam lu soxla nit na nga yërëm doomu aadama yi loo am bokk ak ñoom bul soxor bul iñaan bul jëw bul tooñ ku la tooñ baal ko loo yor nangu ko bokk ak doomu aadama yi na nga fexe ba sellal sa xol loolu mooy latif latif mooy ko am yërmaande comme ni yaay amee yërmande ci doom na nga ko amee yërmande ci jaami yàlla yi boo bëggee latif latif jëriñ la boo ko deful nag mën nga ko weer lu yàgg tëddu la ñëwal bu ko defee noo koy liggéey moom lim bi mooy seize mille six cent quarante et un fukki ak juróom benn junni ak juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak benn la mooy seize mille six cent quarante et un yaa fu ngay liggéey waaye nag doo ko liggéey ci benn jataay da nga koy séddale da ngay tàmbali lundi mardi mercredi jeudi mu jeex lundi da ngay def trois mille trois cent vingt huit mardi nga def trois mille trois cent vingt huit mercredi trois mille trois cent vingt huit euh, nga ñëw euh, alxamis trois mille trois cent vingt huit ajjuma trois mille trois cent vingt huit lundi mardi mercredi jeudi vendredi nga jeexal takk nga ñaan sa aajo yi nga bëgg suñu borom defal la ko incha allah loole ngay toppatoo yàlla dana ko defal mën nga ko tikraar nag bu la neexee boo defee bu bis boobu jeexee mën nga reprendre nga defaat ko ñaareel bi nag am na ñoo xamante ni dañuy tàmbali turu yàlla di werd yàlla latifu ba mu yàgg ñu dégg benn waaye jóge fa lee partagé fatiha ñu bàyyi fa latifu jàpp fatiha ba mu yàgg benn waaye euh, partagé yaa wadudu ñu bàyyi yaa wadudu jàpp jàpp ci leneen maanaam tur wu ñu dégg rek bëgg ko def dañuy wax as sabaatu fii ismin waaxidin aw fii zikrin waaxidin aksaru am sax ci benn tur moo ëpp njariñ te moo gën a gaaw am efficacité loolu nag dama la ko jox misaal bu doon da gas ab teen nga dem fenn ñu ne la fii am na ndox mu neex ngay gas di gas di gas di gas ba teen bi bëgg a bënd ba nga desee ay fan ñu ne la pourtant fële moo dàq am ndox nga bàyyi fa teen ba ba dem di gasaat beneen teen kon lolu man nga gas balé ba muy bëgg bënn ñu waral la benen all nga démar fa di gasal da ngay yag rek di gas ba son way do massa amub teen tour yalla non la mel da ngay gas ba muy bënn nga bàyyi ko fa dem japp ci leneen fekk yow bo togon tout rek tour yalla yu bënd wuy ci la day nuru tamit ngay ngoro xalé bu jigeen ba joxe may gu ñëk ba labat ko ba xalé bi nopp la nga nopp ko léegi léegi tur yàlla raw xaan dañuy dem ba la wuy ci nga bàyyi ko fa dem japp ci leneen liggéey ba yaq ngay ngoro xalé bu jigeen def ci sa alal def ci sa temps ci waxum téléphone ma yonem xaalis ma di ko jàppale ak ay waajuram ba ngeen waxtan ba juba ba nga joxe may gu njëkk ba nopi ba ñu bis nga xey suba gis benen xale bu jigen bu gëna fukk sa bët nga bàyyi wax fa xale bu jigen boba ne damay dem noppi xale bu jigen bi nga defati nonu kooka ba mu yàgg xale bu jigen boba tamit nga gisati keneen ko ko gën nga fa dem ci keneen bu yagge da ngay wër di euh, ngoro ci alli ba son waye yag yag do ma sa am jabar kon ya latifu wala tur bu man di doon boko jappé da ngay sax ci dara ndax ku wayut du wayal nit da ngay way ci dara waaye boo tegee sa soow di wayal ba mu yàgg nga gis beneen soow nga bàyyi ko dem ci ne da ngay yàgg soow booy gas teen boo gas boo teen gis beneen bu a fu gën a neex nga bàyyi ko dem noonu bu dee jigéen goo ngoro nga bàyyi lay mere benn tur yàlla dootu sa mbir ndax jaar mu ne kii jaaroon na fi ko fawe kenn du ko caaxaane ngay jàpp ci benn te sax ci xaar ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala dana dem ba foo ne yaa allahu yàlla suñu borom subhanahu wa taala daf lay wuy si léegi nag lim boobu ku mu dis ci yow beneen lima ngi ci yàlla tiifu képp ku ko saxoo da nga am kàttan doo gàtt wërsëg sa yaakaar du tas te boo deewee sax barke bi dafay des ci sa njaboot te da nga dundee dund gu neex tey da nga am cawarte mooy yàlla te fu 129 ba'da kulli farida gannaaw julli farata gu ne nga def yàlla te fu cent muy 129 fois boo paree nga teg ci ñaan gii may bëgg a wax ñaan gi mooy da def yàlla te fu 129 gannaaw julli farata gu nekk boo defee 129 yàlla te fu ba noppi nga teg ci ñaan gii juróom-ñaar yoon allahumma wasi' علي رزقي اللهم عطف علي خلقك اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن ذل السؤال لغيرك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وسع علي رزقي اللهم عطف علي خلقك اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فزنه عن ذل السؤال li xayrika bi rahmatika ya arhamar rahimin gannaaw jullik farata yaa latifu 129 boo pare nga teg ci ñaan gi juróom-ñaari yoon ma baamtuwaat ko allahumma wassi alayya rizqi allahumma attif alayya xalqaka allahumma kama sunta wajhi an sujudi li xayrika fa sunhu an zulli suali li xayrika bi rahmatika ya arhamar rahim juróom-ñaari yoon loolu mooy ñaan bi nga xam ne mooy ñaanu yaa latif yal na yàlla suñu borom jëriñ ci képp ku ci ñaane والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته